nga xalaat ci situation politique tension politique yi ñuy dund tension politico-judiciaire yi ñuy dund euh, yow tey boo jëloon réew mi lan ngay lan ngay lan ngay lan ngay indi coppite ci façon justice bi ni muy doxee di ci relation bi entre justice yi ak citoyen man xam naa moom waa les magistrats là dina am ku may seetaan dina ma mas a ba jàpp ma moi je pose la question juste pour que les pour que pour que les mais c'est pas un, un procès ou ou des diatribes contre la <laughs> justice. oui non non non non dafay am kenn kuy seetaan gis nga boo yegsee ci moom ba mu mm-hmm. képp la. Mm-hmm. da lay ñamal tuuti. waaw en tout <laughs> xam nga mhm. je veux juste que les mhm. gens mhm. Euh, donnent seen avis que nit ñi joxe ay proposition et que ñu mën a gën a enrichir le fonctionnement de la justice mais ce n'est pas des diaprites euh, <laughs> contre la justice je les adore je les aime yow yow yaa ngi ragal yaa ngi ragal poser ta question nga bëgg ma tontu non non ragaluma ma ko wax pour te mettre à l'aise dama bari li ma koy wax en pour te mettre à man su ah. ma nekkoon président de la république ah. l'exécutif moom l'exécutif le pouvoir moom du laale dara ak justice. c'est facile à dire. non c'est pas facile ba xam nga tax xam nga tax ah non c'est c'est ce que tu veux dire xam nga tax ma ne ma ne du ma laale ak justice gis nga may mën a suñu indépendance ñun ñoo ko laaj ñun dañ koy wane. ñun dañoo on est un pays souverain kenn waruñu dicter yi ak la ca des nit da ngay gëm sa bopp. Sénégal du dëkk bu ndaw ci àdduna du dëkk bu ndaw donc ñun dañoo war a wane suñu bopp wane suñu bopp weesu ñun ñoo taxaw ñu ne dañoo bëgg indépendance ba ñu jox ñu ko mais moom nañu wane indépendance boobu.